Bonjour chers internautes, chers téléspectateurs, merci de nous accueillir chez vous et merci de votre fidélité. Nous sommes ici donc euh, avec euh, la TMS TV, la télévision qui montre ce qui est caché. Donc nous sommes au Cyber Cinco. Euh, nous sommes là pourquoi nous venons couvrir donc une conférence de presse, une conférence de presse organisée par l'intersyndicale du COUD. vu le climat social un peu tendu au niveau de l'université avec les bagarres par-ci par-là. Donc les membres de cet intersyndicat conférence de presse aujourd'hui. Donc ils vont euh, commencer euh, démarrer la conférence de presse d'un moment à l'autre. Donc nous sommes là, vous voyez, les journalistes sont très nombreux, ils sont venus tout simplement y quelques informations. Donc restez avec nous sur la TMS TV et vous verrez tout ce qui va se passer ici exactement. alors mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalate na nag jàmm ci seen télévision bi feeñal conférence de presse ki ko woote moo di intersyndical bi nga xam ne moo fi nekk bu kudd bi parce que lu tax ñu woote ko ñu ne dañu gis ne climat social bi neexul fii université yéen a ngi fàtte temps yële ñoo ngi doon xeex étudiants yi di xeex di di donc di gaañante loolu nag moo tax ñu euh, woote conférence de presse bi ngir nag euh, waxtaan ak nit ñi daal di dégtal benn benn benn xibaar loolu tax nag journalistes yi bëri nañ fi trop yéen a ngi gis euh, ñu bëri bëri organe de presse ñëw nañu ngir rek a wax kon donc des na ci TMS bi télévision bi nga xam ne moo leen di feeñalal chaque jour euh, lii na. entre étudiants survenus récemment au campus de l'université Cheikh Anta Diop précisément au au COUD interpelle toute la conscience toutes les consciences je veux dire en particulier les membres de la communauté universitaire. C'est pourquoi l'intersyndicale s'est réunie pour statuer sur cette question préoccupante. tout en regrettant vivement ces violences qui ne doivent point avoir droit dans l'espace universaire dont la devise est luxe, mais à luxe, la lumière est ma loi, l'intersyndicale se réjouit du dénouement heureux de ces incidents et salue l'esprit de dépassement de tous les acteurs. Nous constatons malheureusement que des esprits malveillants, totalement déconnectés des réalités de l'université, ont fait de ces incidents malheureux l'occasion rêvée pour s'adonner à leur jeu favori, à savoir la désinformation. L'intersyndicale condamne la violence dans le campus social. Par ailleurs, l'intersyndicale soucieux de la paix et de la, de la stabilité dans les campus sociaux, seul gage de bien-être pour les étudiants et les travailleurs, appelle tous, tous les membres de la communauté universitaire à s'ériger en bouclier contre toute tentative de déstabilisation de l'université pour des motivations politiques. Au nom de la paix et de la stabilité dans nos universités, l'intersyndicale invite solennellement les acteurs politiques à épargner l'espace universitaire de leur querelle de chapelle politique. La politisation en outrance des campus sociaux est un facteur de tension préjudiciable à la sécurité des étudiants et des travailleurs. Dans tous les cas, l'intersyndicale se dressera contre tous les pyromanes qui cherchent à passer par l'université pour brûler notre cher pays. En définitive, l'intersyndicale appelle tous les membres de la communauté universaire à cultiver la paix pour faire de l'université un cadre de consolidation et de l'unité nationale ginnaaw lii ñu liir ci tubaab dañuy fexe tekk ko ci nu mu gën a jekkee ci wolof dañu bëgg a wax ni l'ensemble des secrétaires généraux des travaux des partis ñoo leen invité woon tey pour waxtaan ak waa Sénégal ndax ñun dañ jàpp ni ñun ñi nga xamante ni ñooy personnel administratif technique et de service nga xam ne dañuy xëy chaque jour di yeewoon ak étudiants yi kenn gënuñoo xam li xew biir université parce que ñun fii lañuy liggéey guddi ak bëccëg lépp lu fi xew jàpp naa ni ñun ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko mën a nettali ci nettali boo xamante nettali bu gën a mucc ayib la te bu gën a fidèle ay la yéwén nag fan yu ñu weesu gis nañ ay cokkarloo yu am ci diggante ay ay étudiants mais Sénégal ñoo war a xam ni foo xamante ni cent mille personnes dañ fay yeewoo di fa añee di fa reeree di fa ndékkee foofu peut-être mënul ñàkk coow waaye ñuy xamal réew mi ak waa bitim réew que ni ñun liggéeykat yi. coow bi ñu ngi fas yéene taxaw doon benn takku pour xeex ak xiiroo beeg ñaayoo bi am biir université mu dakk mu dakk loolu moom ñu ngi koy ñu ngi interpeller les autorités étatiques si sama biir français euh, texte bi maa ngi wax ni dafa am ñoo xamante ni dañ fiy dugal politique ba mu ëpp loolu ay la yéwén mooy dëgg ñun nag liggéeykat yi taluñ lan lu dul ñëw liggéey dem ñibbi xeex beeg xiiroo beeg ŋaayo bi dañ cee doyal maintenant nag li fi xewoon la fois dernière gën a yokk tax ñu ne ñun ñoo xam li xew fii université mooy man damay ay ree may jàpp bu ma toogee di dégg ci journaux yi ñu naan ay xeexu waaso dafa am biir université man dama jàpp dama ne damay wax ñëpp ñu dégg ko xeexu waaso amul fii biir université cent mille étudiants fu ñuy yeewoo ñaari xale jote ba seeni xarit mais ñëpp ñoo jaar université loolu ku nekk fekkee na ko seeni xarit dugg ci xeex boobu ñu bugg ko def ay xeexu waaso la vraiment man dama dama tiit bi ma déggee loolu di wane ni ñun ñu fekke di jiite liggéeykat yi nekk fii xam histoire bi nu mu demee fii xeexi waaso amu fii ay xale ñoo jote seeni morom jàppale leen ba xeex amu fi am fi képp koo xamante ne journaliste wala ci réew mi nga tekk te jaar université xam nga ni bu ñuy def codification ay cokkorloo dina am bu ñuy def lu ñuy def université ay cokkorloo dina am loolu loolu loolu université la fekk baax mais nag ñu ngi ñaan di interpeller di interpeller l'assemblée de l'université ñun travailleurs yi ñoom ñu jël ay mesures fermes à ce que ay étudiants yoo xamante ni damati nañ nag bay dugg ci xeex boo xamante ni xeex la boo xamante ni histoire bu nu dakk la vraiment l'assemblée de l'université jël ay mesures par rapport à ça ay la yéwén euh, loolu laa amoon lu ma lu ma bëgg a wax ci ndigalu secretaire généraux yi toog maintenant dama leen jox kàddu ku ci am loo xamante ni bëgg nga ko ci yokk nga yokk ko ci parce que wax ji mën na bañ a mate euh, man Saliou Fall laa tudd porte-parole de l'intersyndicale du COUD Saliou Fall porte-parole de l'intersyndicale du COUD voilà SG Moussa voilà ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal man maa ngi tudd Moussa Ndiaye secrétaire général d'un syndicat ñu ngi leen di jaajëfal ndax xaar dafa métti ñu ngi leen ci jégalu bu baax ni ko sama naataango bi waxee loolu rek moo fi am parce que man bu ma toogee sama kër di déglu télé des fois wala may déglu rajo damay tiit ndax tellement que ni ni amplifier affaire bi te dara nekku ci dara amu ci sa kër da nga koy yor yor say doom ñu jékki-jékki xeex te ñoo bokk ndey ak baay université fii nii kenn mënu fee génne xeex mënuñu ko fee génne ndax maanaam c'est-à-dire quand on que ni mënu ko ñu ko fee génne maanaam ni nit ñi bare fii nii il faut cokka santé am nit ñëpp mënuñoo nekk doon benn boo yoree say xaar di ko sàmm benn yat nga yor mais ay nit boo leen yore di sàmm ku ci ne ak jikkoom bi ku ci nekk euh, yat ba nga yor ngir jikkoom moo tax ma waxee noonu mais certes bu ci autorité yi jógee mën na fee jóge bu mën na fee jóge xeex bi kon donc bu ñu déggee loolu ñu àndoo doon benn manko ñëw ni dañuy wax li nga xamante ni moom moo am ñaari nit ñoo xeex université ñaari nit ñoo fi xeex pourquoi ñu bëgg jël problème bi daal di koy virer ci benn côté loolu amul li ci am mooy ñu ngi woo autorité yi ngir ñu gën ñoo jàppale ci li nga xamante ne mooy sécurité étudiants yi ak personnel ngir jàmm dellu si jàmm naam dellu si na waaye nag gën koo yokk gën koo améliorer ba nga xamante ni euh, neew ñi dina fi ñàkk mais dina fi gëj wala mu raax fi lool ñu ngi koy ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk réew mi ñu ŋànk université yi d'abord ku ñu jàppaleen ci sécurité travailleur ak sécurité étudiant yi loolu laa ni woon dinaa ko ci dolli ndax sama naataango bi wax na lépp lépp li nga xamante ni waroon nañ ko cee wax wax na ko comme ci tubaab comme ci wolof dama ñëwoon rek ngir dolli ci li nga xamante ni moom la wax voilà et je bon salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñun ñu ngi tudd Mouhamed Dieng. di secrétaire général adjoint bu Sintras mooy syndicat des national des travailleurs de la santé section bu Koudou je pense que li ñu ci waroon a wax secrétaire généraux yi junj nañu ko wax nañ ñu li ngeen ci war a xam yéen mais li ñu ciy dolli lu ndaw lay doon mooy fii nga xam ni mooy campus social ñun dafa am sacerdoce boo xam ne moo nekk si ñun ñi nga xam ne la ñu tuddee les parcs parcs yi sans que le secretaire général Saliou Faye wax nañ ko mais personnel administratif et technique de service ñooñu ñooy parce yi lan mooy sacerdoce bi ñu yor ñun mooy suñu réew jeunesse bi nga xam ne moom la am war leen former pour ëllëg ñu passé leen le témoin ñu yor réew mi def ay jéego yu am solo xale yooyu la ñu sa la ñu dénk ñun ñu war a caytu seen wér-gu-yaram wala caytu seen aafiya war a saytu seen doxalin bu ëllëgee bu ñu génnee fu ñu teewal réew mi rek ñu xam ne ñii kat formation bañ jaar am na solo bu ñu demee ba am yu mel nii xam ne am na fi muy lu ñuy regretter du ñu yem ci regretter dañu koy dénoncer ndax fii place jàmm la war a doon ndax jotaay boo xam ne la ñi fiy dajee tur bi uyu na borom mooy université li Sénégal am ci xeetu waaso am ko ci xeetu nit dañu fi dajee lii but bi nag mooy ñun waa kudd œuvre sociale yi ñu dimbale leen ba ñu ràbbante seen biir ba créer cohésion bi nga xam ne nii jëmlante ak jëflante boo xam ne ëllëg mooy doon gage u sécurité bi mun bu ñu mun a permettre ñu pérenniser suñu nation nation sénégalaise cette nation qui est très forte et toujours debout loolu nag bu ñu xew yi amee du ñu yem si ñun dénoncer ko du ñu yem si aussi alerter opinion bi ñu am xam lenn mooy que ne ñun li ñu liggéey fii yéen aussi di ngeen si am responsabilité mooy ngeen jàppale ñu si ni ngeen ñu si jàppale mooy yii bu xewetee ñëpp ñu bokk si benn côté bi ñuy tiiree di fa dóoree ndax il y va de l'intérêt de la nation je dirais même de l'intérêt suprême de la nation donc ñu ngi owaat opinion bi di leen alerter ñu xam ne université bi ñi fi nekk c'est le grenier grenier bi nga ma sàq mi nga xam ne ni ëllëg ci lay réew mi di tubb pour mun a siggi ëllëg ci pénc mi nga xam ne nii réewu àddina yëpp ak réewu Afrique yëpp fa la ñuy dajee di nas di nocc loolu mooy lu gàtt loo xam ne bu nañ ko si dolli si wax ji nga xam ne daanaka mat na matale na ñu bu ko ci dolli pour delloo leen li nga xam ne si war ngeen ko moom mooy journaliste yi la plupart fii leen leen formé fii ngeen jàngee fii ngeen formé lii xale yi def wax na ko sànq yéen jaar ngeen si suñuy mag ñi jaar nañ si ñun jaar nañ si suñu doom yi ñu ngi si dinañ si jaari ëllëg suñu rakk yi ñoo si nekk di ko jaar ngeen jàppale ñu si liggéey boobu ba ëllëgee cette génération là yi les générations qui vont passer ici vont se succéder ici bu ñu génnee ñu mun lañu ràññee mun leen xàmmee ñu doon fierté de la nation sénégalaise je vous remercie Voilà, chers internautes, chers euh, téléspectateurs, donc vous l'avez suivi avec nous, c'était donc la conférence de presse, je dirais même le point de presse de l'intersyndicale donc euh, du coude, l'intersyndicale du donc tout simplement se réunissait tout simplement pour parler aux journalistes par rapport au climat assez tendu au niveau de l'université. Vous, donc vous avez eu des bagarres entre étudiants. Ils ont expliqué la situation qui se bagarraient parce qu'ils avaient tout simplement un petit problème lors des codifications, mais il ne s'agissait pas, il ne changé, donc c'était ça. Donc vous l'avez suivi, donc ils l'ont expliqué très clairement et ils incitent les organes de presse à ne pas tout simplement envenimer euh, l'affaire. Donc pour dire que vraiment à l'université, les gens se sont toujours bagarrés et surtout durant les co codifications. alors donc mbokk internautes yi mbokk téléspectateurs yi safo di seetaan TMS TV bi yéen a ko déggoonoo ak ñun dégg ngeen conférence de presse bi dégg ngeen li yi expliqué mu nekk nag euh, benn conférence de presse boo xam ne intersyndical bi euh, point de presse sax laay wax parce que dañu ñëw rek wax dem dañ ci doon wax ak ñi nga xam ne mooy journalistes yi pour expliquer leen exactement lan moo taxoon étudiants yooyu di xeex étudiants yi nag li waraloon ñuy xeex euh, dafa nekkoon rek durant codification ñaari nit yu doon xeex mu nekk donc benn bataille boo xam ne seen mbokk dañ ci dugg seen i xarit loolu la donc loolu lañ doon expliqué expliqué di waree ne université du terrain violence terrain boo xam ne dañ fiy sàkku xam-xam ñuy nag ñaanti ci bu problème amatee ñu bañ ko gën a yokk mais ñu daal di defar rek mu mu wàññee ko parce que fii université fii la ñi nga xam ne ñooy kàngam yi war a jiite réew mi euh, di jógee ñu ngi leen di jaajëfal ci seen kóolute ak ci seen teewlu di leen jox dig jaje ci yeneen jotaay xibaar